mais yow bu fekkee ni yow yaa ngi génn di marche yaa ngi génne ay nit ñuy marche pour pétrole boo xam ne teguguñu ci suñu loxo yaa ngi génn di marche pour malien yi yaa ngi àddu ci problème mu ñeneen yi yaa ngi wax ak waa Togo léegi loo tax yow sa bos bii ne këcc na jonn doo wax say militant ñu génn marche pour procès am boobu gënul gaaw yow sa xel dal na yaa ngi sa passeport diplomatique wër na la say avocat lu ñuy dem di demander pour ñu jox la possibilité nga voyager lan moo tax say militant di ñaxtu ci internet bi naan delloo jot na jot na waa ji nu ñu koy woowee sax jot na pro jot passeport am et ça ça dénote aussi du manque de professionnalisme et de rigueur parce que mënul sax déggante ak ay militants ñu wax mel son de cloche moom mu ngi naan mu ngi yow passeport mën na tukki ay militants par centaine ñu ngi def ay photo def passeport bind ni que ba ñu créer collectif di siège di siège di di di di toppandoo CODAS collectif pour que soo ko jot passeport am dégg ngeen ko fii alors bu fekkee ni moom nee na amul problème mu passeport pourquoi ay militants di am collectif pour que mu jot ci passeport am voilà quand on même pas la rigueur de gérer les affaires internes de son parti qu'on n'ait pas la prétention de gérer les affaires de 16 millions d'âmes maanaam les affaires du Sénégal te loolu laa wax depuis le premier jour ku mënut a gérer un parti mënoo Sénégal et il a démontré encore une fois hier qu'il n'en a ni le calibre ni les munitions